ê ê ê ê à. magumta muyat ê ê ê boy yo lomo bola wow Cuba nasional, cuba nasional ada juga. Kau kalau mau tanya yang tuang nan cup gay joy. Lai lo lo lo seman. Anak cup. Lo seman. Dan nyul. dañu sàcc rek dañu xeex quoi. xeex kon xeex. waaye dimbali na nga naan ba xeex. bu xeex day am ku xeex. arbitre bi bokk na waar bokk na waar. waar bi yow tey bay yee yee. ba Sénégal pare sa yëf doog a sol drapeau bi normal. tey indi woo ñam sabe bii rek laa defuloo étoile kon ga ga kay ga kay dama waaye dimbali ma étoile waaw kay fii lay ne waaye fii ah. wala na réew mi si naqar lan ne na Sénégal la ngi mel ni armée timis léegi fu mu ne dara du yëngu étoile ñaata étoile léegi fu mu ne bii waaye fii nga ko defoon moo baax waaye fii fu mu nekk léegi laa waat c'est bon c'est bon waaw jeeg na loolu baax na yomb na waaw dañoo sàcc wallaay dañoo sàcc noonu dañoo sàcc ku la sàcc parce que waar kam sàcc nañ man waar bi yàgg naa leen koo wax naa leen waar bi gars yi dañuy toog di naan ataay dañuy xiim waaw gis nga arbitre day taxaw lu yàgg def nii woote waaw mais gars yi sax duñ ko lijjën waaw dañuy nekk lawal la ñuy def deuxième troisième ba tarxiis joxu na ñu cër gees saa dañ koy def foofu waaw gees ah wax naa leen ko mi nag ku nekkee wax ku ne wax salbe yor Selbé man ba ma génne si moom daa yàgg. gémmiñu kañam boobu. wax wax rek wax wax rek. rey nañu rek ay parce que Serigne Bamba parce que Serigne Bamba laa wax coupe bi di ñëw maa ko moom dañuy génn tam. Selbé de yaa ko tane. Selbé tooñ nga Serigne. da ngaa deful sa baaxu maam rek. mën a fen waaw équipe bi ba dem. waaw pël dëgg dëgg day baax. moo nga noo jox loo xamante ni ko defee si kaay. bal ko dem bal dik. ñoo da ngaa bàyyi sa baaxu maam. da ngaa nationalité sa trop. waaw ñoom ñooy nangu ñëw nangul ñëw. def naa ko si YouTube Instagram yëpp pour ñu ñëw ñooñu ñooñu dañoo bañ. nan nañ man damay dama dama damay damay. xel naa fekk ñu lekk xaalis maa yow bu du jeex tàkk xaalis bu jeex tàll ne lekk mais woyoo sa bopp. wax naa leen ko publicité naa war nañu publicité. <laughs> def naa publicité. day day jàmbaar ndeysaan gaynde du rus xolal booy Cheikhou Kouyaté bi muy wàcc keroog si avion bi daa rus ba fa xasal parce que xamuñu gàcce Sénégal xamul gàcce xamu ko attunu ko sax dëkk baa ngi wéet ba mel ni arméeri timis gisoo gisoo ba ñu ñëwee si kii ba ñu ñëw di dem fale le di tourné noonu bis gis nga ji nit bi yow loolu moom yaa ko tal man moom ba naa réew wullee laa sap suñu gañe woon kon nan lay mel foofu xar réew mi ñaar rek kenn ku ne la nga am ñu jox la ko. non suñu gañu woon daane wax nit ñi comme ça le le environnement nit ñi. Ah. kon nan lay mel. comme ah. nit ñu génn ba ba ñu gañee nit ñu génn di la wax woo ay ay yidum yooyu daa wax. donc suñu gañu woon. waaw waaw bu senegal gañe woon ba ma maye sama sama sama jàmb ndaan ki mandi gu yàgg ga. ba may leen juutu bàyyi si yàq bàyyi ka yëngu. jéggi waaw fi ne nekk wala ñu waxtaan deug rek nak ca yalla tax wa fa la rew mi fi ne loo si def fim leen coupe d'Afrique bi nga doon xaar wa jeex na waaw looy xaar si dellu war a sooji wër wër sooji man dëkk ma wër sooji dëgg dëgg ma war a soogi man ci lañ laa dëkk waaw yow ci la ngay war a soogi war capital ba waaw li fay war a soogee ren waaw lan laa fay def ren ko dum carrément ma sàmmi looy xaar si sàmmi looy def si dëkk loo yor jox jàgg ji pour la da ngaa sëy sëy sëy sëy sëy sëy ba nurootoo nit bi nga ñëw ndakaaru li nga yoroon du du du du du du jeex. booy jamono yi ñu toll nar dërëm yoroo. booy leen weddi fii loo yor sëy ko. man maa dee yow. <laughs> di sëy. bàcc rek. yow dimbali ba nga <laughs> wax nga bàyyi xaj yi dégg sa camion bi yow loo verte rek dem këpp xaj yi xaj yi yow doo kii nit ñi de. waaye moom may tuubaal xaj yi la xaj yi ngay dem yow waaye pël may tuubaal waaye. voilà xaj yi ngay dem waaye pël nga dem yóbbul sa jabar ji xaalis mais loolu yor tam dem yóbbul eh, ma su ma duggee sa néeg ay paracetamol yi yooyu laaj parce que damaa jam mag wéru ma wéru ma du boobu de damaa jëm mag garab paracetamol buy baax bi de xam nga li ma la wax yow paracetamol <laughs> wala daal kudaare man maa ngi dem sama yoon lii yow yaa mën a ñàpp sat ma yow eh, duul waxoo dëgg du dëgg yaa wax na dëgg li may sëy bari moom bàcc rek sarap yorutuma may sëye bari réalité waaw tol bi man tolu ma yoo man ci masa naas bi yëpp noo gaañe laa xalaat man si ñu waxee faaw rek du jeex rek fu ma mbedd yi naan ma door a door a door ba mënatuma ko kenn mënatu yàlla baax na yàlla baax eh.